nekk nekk leen ci rek nekk leen ci rek day gën a neex rek di gën a baax di gën a sell di gën a <laughs> bàjj na rek nag waaw <laughs> waaw bu leen geesu bu leen taxaw bu leen déglu lenn lu lu lu lu di jëme ci lii fa tabaarakallaahu noo ngi leen seen sant suñu borom nag mu nu boole sëriñ bi ndax sëriñ bi mi nu booleel donc ko gën a sant sax si dakk sang sant ko di sant sëriñ bi nag mi nga xam ne mooy suñu lépp tey moo fàggul suñu lépp tey suñu lu lépp lu ñuy jariñ biir ak lépp lu ñuy jariñ tey nga nag lépp moo na ko fàggul dañ ko sant bu baax a baax a baax a baax ci nekkal ko ci ni nekkal ko ci ni mu bëgg moom bëggul dara loolu nag nag yàlla ak bi rek waaw ah, di jaamu yàlla di borom di di jaamu yàlla liggéeyal yonent bi lépp te yàlla tax ndax joxoñ bi mu ko joxoñ boole ko moom amul fen beneen jëmul fenn beneen amul beneen diggante bëggul leneen waaw loolu nag eh, alhamdulilah rabil aalamiina loolu la na fi bàyyil waaw ah, lu mu ci néew néew néew doole nañ ci nañ ko ci nekkal rek suñ kem kattan waaw nañ ko ci nekkal suñ kem kattan rek waaw loolu ren ki lañ ko mën a sant waxuma xëy na mën na ko lëggeel waaye mën nañ ko sant nag ndax sant moom lu néew nit néew néew doole war ko mën kon nañ ko sant ci jéem nag suñu kem kattan nekkal ci lim ko nag li mu bëggoon loolu rek mooy noonu rek la loolu la noonu moo ko waxee rek kon noonu rek lay demee gën a neex rek gën a sell waaw gën a gën a yiw gën a baax gën a rafet gën a gën <laughs> bàjje na rek nag <laughs> ah noonu noonu noonu rek la noonu rek la bu nu ci kenn mag. Ah, bu nu ci kenn mag nag bu mu bu mu bu muy muy malaayika bu muy di yonent <laughs> bu ci kenn mag noonu rek la nii mu nii ko sëriñ bi defee rek ni la waaw waaw da ngay rawe waaye kenn du la raw <laughs> waaw moom moom moom moom daa rawe waaye kenn rawu ko <laughs> kon nag kon nag kon nag nan ci nekk rek dañuy rawe waaye kenn du la rawoon loolu rek la <laughs> gën a gën a gën a gën a gën a gën a sant eh, sant sëriñ bi nag sëriñ eh, sëriñ Moustapha mii ndax pàggatu ci pàggatu rek la bokk waaw fii fii mu toll te te te nekk nekk suñu jëwriñ ci lii lii lii nga xam ne mooy suñu ngëneel ngëneel teegal rek ci nu mën a amee ngëneel teegal rek yàlla toll mu toll fii mu toll xiir ko ci lii mu toll fii mu fi mu fi mu toll nekk ci nii mu ci nekkee sant leen bi ngeen xam ne ngi seen kanam <laughs> te xool ko rek xool ko rek waaw ngeen gën a xool rek gën a gën aw yoon wi nii ma neen ko waxee woon <laughs> waaw koy sant sëriñ bi bu baax a baax ndax loolu xam na lépp ci pàggu teewlu ndax ndax moom sëñ ama sëñ Axma moom mooy suñu jëwriñ waaye moom mooy jëwriñ sëñ Axma waaw ah, kon noonu noonu rek la demee noonu rek bu bu ci kenn mag nan ci nekk na ñëpp mun <laughs> ko bàyyee kenn buñ bàyyee jombale dara suñu bopp ci ci lu baax ndax sëñ bi sëñ sëñ tax bàyyi ko kenn te jëmale wut jëmale boppam dara lu baax dara yàlla dara jëmale ko boppam kon nag noonu it am nañ sañ-sañ nag <laughs> nañu góorgóorlu bu baax <laughs> mun ko bàyyee kenn ah, mun jomale suñu bopp dara lu baax waaw kon góorgóorlu rek nu mu gën rek na la baax nu mu gën a baaxee rek noonu la lu ci waay man rek na ko def kem kàttanam kem kàttanam rek boobu dafay ndax boo defee sa kem kàttan moom borom kàttan la yóbbu la fa nga jëm waaw ah, waaye nag dañuy def suñu kem kattan waaw waaw ah, noonu ah. <laughs> <laughs> rek la ko yemale foofu ndax. xam ne. mbo mbooloo mooy ko joxe. lu toll ci maanaam. mbo mbooloo mi ci ñetti nit la sosoo démb toll bi hmm. maanaam moo la ñu wax daara yi ma atixul bisri am nañ ci Touba ak ci gox yi ci réew mi yu bëree bëri waaw ñoom nag dañoo baaxoo def at at at mu ne maanaam eh, eh, dañoo baaxoon ab siyaar bi ñuy def nekk jekk ginnaaw nag yàlla dogal na yaa fi nekkal sëriñ bi ñu dikk ne la mbooloo maa ngi nii ñu ñu si ginnaaw di di diglu say ndigal foo leen xëyloo ñu xëy fa foo leen gontloo ñu doo nekk la ñu nekk ci ñun daal jàppal ne jàppal ne mbooloo mi jàppal ne mbooloo mi ci yow ak donga bi nga yar mën a ci sa daara ji ndigal rek la ñuy diglu waaw waaw jé jébbal nañ la lépp mbooloo mi waaw waaw waaw no no no no no rek la amee nag waaw di di di daanaka sax duñ ci teg yenn kàddu ndax lépp mën na sëkk sëkk waaye nag di dagaanaat ak yalwaan ak sàkku ndimbal rek te xam nañ ne ndimbal am na fi bëgg eh, nga nga nga nga dimbali ngir yàlla ak jëmee Sëñ Tuubaa waaw li ngeen fi alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah ci des nag moom ci mbooloo mi lay jëm eh, maanaam li li li li ngeen am ba lii nu am bu ma ko mënoon a wax bu fekkoon ne nit day am lu ko jomb mën ne li nu am jomb nañ waaye nag ngëneel ak ndimbalu sëriñ bi ak xam moo tax na mën a am lii kon nag li nu am na nañ ko xam bu baax a baax a baax te kàddoom yi mu wax nañ ko jël teg ko suñu kanam def ko ab soññ fexe fexe caa jaare ni mu ko waxe ndax wóor na ma ne ku ca jéem lu néew néew e, boroomam dana ko dimbale ndax ñoom e, duñ duñ lépp lu wax rek du yàlla na ma def la kon na ngeen góorgóorlu bu baax a baax a baax delluwaat yitte yi ak njub gi ak farlu gi te xañtuwaat sëriñ bi seen kem kattan ni mu ko waxee rek waaw te te tënkuwaat ci ndigal waaw waaw man da nga bàkkee sama sama cant man euh, maanaam sama làmmiñ lot na ci wax ko waaw ndax ndax ndax ndax du du dara ñoo ñoo gën a doy di fi te te eh, gis nañu eh, ni nga nu téye waaye lépp loon wax rek dañ koy defee laxasaay ak soññ te it mu mu ñuy dimbali bu baax a baax a baax ndax ndax la la la la la nitu yàlla ko waxoon rek ci sëñ Xayu Mbàkke laa ko déggee mu ne mu ne dafa am koo xam ne nii bokkul woon ci nit yàlla yi waaye nit yàlla yi. jortu gañ jortu ne ca la bokk rek far yàlla boole ko ci mu ne maa kuntu ahlan wa hum ra aw nii bi daaka ahlan fa sirtu ahla <laughs> eh, ma fàttali la it loo xam ne ni ci sëñ Abdul Baaxee la laa ko déggee nga xam ne da ko wax ma mokkal ko sëñ sëñ sëñ Maxtaar Buso mu sëñ Masamba Kanni bokkoon na ci say nit dafa ñetti ñetti bay waxoon yoo xam ne xam naa ne boobu yàgg na waaye day day mel ne tey tey taxoon dafa waxoon ne wala ni'ma daarul muntaqa daaru tuqa man zaaraha laa yaltaqi ma yuttaqa daarun yurafrifu fawqaha alamul huda wa yasuuduha jawu saadati wannaqa waaye nag li nga ko mottalee moo moo moo ci dàq laa ayba fiiha gayra anna nazilaha yansal ayaala wala yurdi siwal baqa loolu nag Mbàkke moo nu dal ñun ñëpp kenn bëgg ci dellu kenn bëgg ci ku ñëw fi yow rek ni mu ko waxee da da ngay fàtte sa kër ak sa njaboot jërëjëf Mbàkke jërëjëf ah, ah, ah, kon nag wax gi ma ko wax amal na ko njëriñ amal na ko njëriñ yàgg fi lool Mbàkke te murid yëpp la ko yéene sagu sagu sagu murid yëpp nga Mbàkke xaalis la. léegi bu ngeen jëkkee jéggi rek jëm si ji rek moo gën ay milliards. dëgg la dëgg la waaw xam xam xam nañ ko tam mas na ko waat de. waaw mas na ko waat wax wax nga ma ko léegi de. ne ma njàng mii de. xëy na engrais ba dee. alhamdulilah. alhamdulilah. قبلنا ورضينا قبلنا ورضينا قبلنا ورضينا آمين آمين قبلنا آمين اهدي جميعا الصراط المستقيم وبسعيهم كلنا البرزخ اهدي جميع الناس صراط المستقيم وبسعيه كلنا بلا سخيم لك خطابي يا خليق يا مجيب يا من به لا زمن yaa sa sera بيتنا